bu ñu suñu ay jàpp leen dafay nekk yoon à chaque fois ñun dañuy dem rëbës dañuy ñëw fii di leen soutenir parce que amuñu du ñoom ñoom te amuñu du dul bu ñu nekkee ci bi ñu nekk ci biti suñu wareef mooy saa yu saa yu tënne ñu ñuy gis seen côté. commande eh, fen tey ba tey ñu assisté waat ak yéen euh, procès tey Bamba Fall tey mu war a jàkkaaroog le des juges tey ban pressentiment ngeen am en tant que ay militants ay responsables. xel mu dal xel mu dal parce que on a un maire Bamba Fall bu nekk un pur produit du parti socialiste. juddoo ci parti bi yaroo ci parti bi màggee ci parti bi te luñ koy jiiñ un responsable politique de la trame de Bamba Fall du ko def parce que xamul kenn xamul leen lu dul parti bi léppam parti bi donc xel mu dal rek lañ mën a am il n'a rien fait juste moom osé na soutenir un candidat gëm ne kooku mën na au moins suqali Sénégal muy le président Ababacar Khalifa Ababacar Sall mu osé porte ce combat loolu moo ko jural lu ko jural tey. Macky Sall kenn du wax problème bi te tuddoo ko ndax suñu campagne électorale locale bi daf gisoon nañ ni ñu sote ñu yenu leen teg ci suuf ñaareel ba Tanor n'est pas un leader comme on le dit parce que lii xew na ñun suñu parti réew mi mais Idrissa Seck daf ci teg tànkam defar ba mu rafet. ndax ñëpp moo leen jaboote mu xewaat ci parti Macky Sall tout récemment mais ba ñu arrêté xale yi dafa leen libéré lu kon Tanor lii mu def moom la engage di wut lu neex Macky Sall. moo tax mu tige Bamba Fall. tey Bamba Fall mi ñu fi tëj il est responsable de la commune de Médina yàgg ci parti bi moom moo muré clôture maison du parti kuy muré maison doo toj maison du parti ñu jël Birakan Ndiaye. mu nekk doomu Para Sène Ndiaye def lu ne parti bi nekk suñu directeur de cabinet nekk suñu responsable HLM ñu jël ko jàpp ko jël responsable mel ni Bassirou Samb nekk responsable des jeunes au niveau régional ñu jàpp ko ñoom Cheikh Sall ñoom Malick Kébé ñi ñu jàpp ñëpp ce sont des jeunes responsables nekk suñu ay camarades te ñoom ñu ngi tëj doomu jàmbur ñu rëbës jël seeni doom làkk leen leen ñuy jàng fay à l'étranger vraiment c'est déplorable mais euh, comme le dit votre camarade dafa jàpp ni que Bamba Fall ak ñi mu àndal wala xam nga ab combat boo ko perdee ba pare noonu rek langage woowu rek la Ousmane Tanor Dieng mën a am Ousmane Tanor Dieng xam na pertinemment aujourd'hui bu toogee ba ndaw yi nga xam ne démbook barki démb ñoo ngemboon parti bi bu parti bi ñàkkee le pouvoir en kii en 2000 tey mu toog dinaa ne ñooñu dañuy victimiser wu c'est qu'il a perdu le combat parce que ay ndaw boo leen uufee ñu jàppale la ba sa parti là aujourd'hui mu doon un parti crédible et audible tey nga toog naa ne ndaw yooyu ñoo bëggoon yàq parti ñoo ma bëggoon assassiné loolu ay wax yu nax la ay wax yu daanu ci sareet la parce que ki la bëgg ak faagagal boo koy porter plainte doo porter plainte contre x da xam ne diw la nga porté ko te Bamba Fall doo koo xam ne dañ koy présenté Ousmane Tanor Dieng. man nag dama leen ne téeméeri junney Bamba Fall mu ngi Medina ay bañkat ñoo nekk Medina bu ñuy téye nañ téye ñëpp Bamba fekkeewul fa ñuy sottee ma te man gëm naa ne parti socialiste dafa dee woon ñun Medina gi ñu bokk parti socialiste existé tu fa woon benn benn la fa woon grace à Bamba Fall parti socialiste dekkiwaat fa ndax man toujours maa ngi ci terrain bi maa ngi ci base bi. retrouvailles dina possible mais il faut que ñoom ñu xamante ne ñu am na lu ñu métti ba pare la retrouvaille di am parce que yow mënoo ñëw nga ne tey ji nañu hypothéquer avenir u parti bi ndax il faut que ñun ñëpp ñu voté non ñu voté oui ci référendum bi boo ndee foofu mooy surtout problème ba ñu waxee oui ñu leen non la ñuy voté te parti socialiste dafa nekk parti moom ne dafa sam démocratie lépp lu ñuy waxtaan nañ ko daan waxtaanee ba pare ci instance su parti bi parti bi boo seetlu depuis 2012 wootatuñu comité central dañuy naan ay secrétariat élargi te un secrétaire yaa rôle mooy préparer réunion mais du moom mooy décider li lay war ñoom nekk ñu ci yoon hypothèque nañ parti bi lu ñu ko jëndee ay haut conseil ay euh, ñaari poste ministre te parti bi rôle xam lan la war nekk reconquérir le pouvoir. mais est ce que xaw na jaadul tuuti ngeen fal Ousmane Tanor Dieng ci congrès tey bëgg a retourner waat combattre ko. xam nga parti politique ci ay règles lay fonctionner du kër baay règles yooyu nag boo nekkee ab njiit boo ko wàccee. ñi nga jiite dañ lay naa ne wàcc nga règle yooyu mën na am xam nga nit ki moom nuyoo mën nga naan ne nit ki salaamaaleykum mais mënoo xaar ci moom mu fayee la maaleykum salaam donc moom nu mu wàccee le parti il fallait pas s'attendre aussi nit ñi répondre ko d'une manière boo xam ne manière bu ko neex la nit dañ koy répondre ci manière bi nga xam ne dañ koy woon ne il a violé les règles parti comme violé comme il a osé le violer ñun aussi dañ toog jàmmarloog moom waa ko da ngaa violé les parti. Khalifa Sall nag xëy na am na vision. am vision mun na loo ko dara parti bu am ni PS nga jël ko di ko seeyal ci APR nga xam ne euh, association la vraiment du parti association la kooku trop c'est trop moom nag moo ñas dañu xam ne jeexal nañu moo tax mais heureusement seen ay xaleel xam fu ñuy teg seen tànk. moom moo waxoon bu leen fàtte 2012. dootuma nekk candidat su ma su ma su ma su ma lajjee yow nag mu dëkk ci doo jàll ba pare doo bàyyi keneen jàll ñun dañu am ambition ambition mooy lan PS ñëwaat le pouvoir PS moo tabax Sénégal kon PS dafa war a jiite dëkk bi ni mu ko jiitee nag am na au moins koo xamante ne socialiste la yàlla def na xolam ci sénégalais muy Khalifa Sall na ko jàppale mu jiite réew mi PS ñëwaat au pouvoir mu gën nga koy xaj mu avancé